lu tax lool. ki nga toogal di waxtaan pour lan la nga xamante ni mooy sama ennemi number one te dalisu laa koy bind xam naa ne fu mu yendu duma fa baax te man maa la fi indi. cas contraire que li nga foog ki ba mu toggee fii ba léegi lu baax rek lay wax ci yow. macha allah. ah yow moom xanaa gan nga man kat dama la fi xàmmewu. wax nga dëgg. Ah? man nag xarit jatu laa. ah. waaye de bu mu fi ñëwee ba léegi maa ngi fi doog a teg sama tànk. Ah, loolu la kay. waaye de sama wëlëri bu yàgg la sax. Hmm? waaw ba ñu tuut tànk ba léegi ñooy ànd. te bañ dëkkee géejuwaay la. man la Moodu. ah yaay modu? magam laa. <laughs> Ya, de ni ma lay déggee nii xaritam nga. waaw ah xana kon xana ma wax la sama soxla rek te nga dimbal ma ci ndax wax deug yalla jatu gorom wit wit ci kër gi sonol nako 8 8 8 8 8 8 8 witt witt nakam, wallaahi may ko jàmm may ko salaam may ko maanu nangoo sëy xale boo xamante ni boo ko tegee fii boo ñaatee fa nga koy fekk moo mën ci liggéeyu kër gi moo mën ci ñun dara mën daal xawma ban problème la am ak moom te sax amul moom problème xam nga gis nit ki moom bañ ko rek day am te looloo ko dal ci diggante ak xale bi mm-hmm. mu bëggoon nag bu fekkee mën nga ci dara ah nga dimbali ma. Ah, Jatu de bu fekkante ni noonu lay def deful li waree fam ndaxte yàlla da koo dénk njaboot te tamit dafa am doom bu jigéen ba nga xamante ni si ñaan na yàlla ëllëg mu dem sëy ji feneen te ni nga téye doomu jàmbu rek sa doom fa mu dem noonu lañ koy téye ah man de yàlla dénk guma goro waye dama koy ñaan bis bu mu ko dénkee koku mu ma denk ma def ko ni dombu mu suku jur waye na dina waxtaan ak mom yow moom wax deug yalla ku deug sa kaddu gi xamni yow deug yalla ku bax nga te tim bo amé goro di ko téye laf jatt rek waye nak len na ci dess lo xamna dal euh xam nga maa la pour ngox ko mm-hmm. waye bokk ka waxe bula la laajee ku la ko wax nga baña sen dal xamna sen day desee leer sa nop moy nga bañ ka ka wax ni man maa ka wax bu ma feeñal dimbali ma ci rek dégg na waxtan solo yaa dam de maa ko fi li nga ma ba? Ba yàggoo fi Ñu la fi nak bi sànq nag damaa génnoon tàllal tànk moo tax it maa ngi waxtaan ak kii mu xorom ba dëgg si jàmm maa si jàmm. mbaa sonn ci yoon wi. déedéet sonn ma ci yoon. mbaa réeroo. ah réer yow kuy réer fii ndax yow. yow rek ñëpp a ma <laughs> ba fële daal laa toll ne kër jatu laa jëm. ñu ne ma toppal nii. waaw moom boo nee boo nee kër Modou sax daanaka dañ la fi jënd. <laughs> ndeysaan. waaw. mu jañ. man nga gën ko mam rek nga dalal ko. da fay nekul won di suma fi nekul boko ko ci salu bo pare paree jugal dem sama mag la. ah sama mag la mu ngi koy wax léegi. sama mag deug ma sha allah ku baax la ku baax nga sa bunt. ay gars yi. ñu àgg. waaw ah, kay jërëjëf. nga nga dencal ma rek. Ah. Ah, kon li ma wax sànq bul fàtte. fàtte xaj fàtte yàggul léegi daal ko wax dégg nga. incha allah. dafa neex waaye na mu naa la nag. bilaay maa sama doom jigéen fa di muy gën a të bàyyi jàmbur. <laughs> bàyyi jàmbur chaque a doon wax. daa mën a nettali de. moo de wax na ma ni nga téye sa goro bi waaye nag ma bu fekkee ne noonu la deme tegoo ko ci yoon de. ndaam gis nga sama goro boobu ma ñëwee sa kër la ma la ca waxoon moo ca nekk ba fi may waxee ak yow gis nga moom Modou mii. day doxaan nday xale bi nday xale ba ni ko soo ma bëggee takk dangay jël sama doom ju jigéen ji may ko sa jarbaat moo tax mu yenu xale boobu indil ma ko ci kër gi waaye yow xar nga maa xam dañoo ànd petit bagaran jëkkër ñu tàqale ku nekk sëy xam nga ni ku yor doomu jàmbur ci mbedd mi sa jabari doom saf ta wax ma loolu sama jikko ah boo meloon noonu de damay jaaxal sama doom ji danga ko gis nga bëgg ko nga ñëw ñaan si ko ma fas yéene ko may te yàlla rek tax waaye nag sëy nekkul lo nga xamante ni dañ koy foree sa marché ba ñëw andi ndax sëy dari lu sacré te yàlla du ko bind ci aras man mi ndeyam de sëykat laa te dama sëyal baayam bu mu jóge fi te noonu laa ko fas yéene sëyloowe ci kàttanu yàlla sama doom la bu fekkente ne danga koo jël pour faj mer wax sëy mu nga ko jël teg ko ci suuf ndax sama doom du xeexe doole kenn xarit xam nga ni dom ji nga wara nampal ci sa wien do ko xan ci xam nga ni dom ji sama dom la dam ko bëgg rek te yalla tax banen bi ci des xam nga ni man ñàkkuma doole bay xeexe doole kenn loolu am na ah yàlla nañu yàlla dolli sutura <laughs> waaye nag man damay ñëw dem de damay fayu yii damay fayu <laughs> damay fayu bu def noonu bàyyi mu ñëw dem kër ga daal wéet kenn new fa muy yéen kon ki kaful de muy yow damay dem kat doo toog ma toggal a sab xam nga ma de kaldu ga xam nga ma yii yow xam nga ne yow loolu moom ba mu ko tuddalee dangaa bëgg ma yendu yàlla ya bo ci def bisaab fu furu ba ci kaw. sang sa ñetti kànje yi uy ma damay def. waa jàng sa la bax na sa robu gis <laughs> na la. da nga bëlaalee yaa ngi sañse merci beaucoup. waa jàng ah man tay bu naa ñu waxtaan de. jam jam la du jam jank man jaaxle na ciumina kuma xol xamna stress kessa la jank yow de umpale woo ne maa ngi yow dañ tan tok di waxtan lu bari nga may conseil ci lu bari ma lay conseil tam ci lu bari waye li olof ñay naan mat mat lal borom la la ko xam xam nga du la na def na ma goro <laughs> goro bu goro wala bu jigen bu don goro bu góor mu neexali jënti Soubidou de rakku yaayam ba ne village moom la ma indil. alhamdulilah. alhamdulilah. naa sant yàlla. man dinaa gis yow li ngay daj sa biir néegu say goro dila la teg ci lu tàng jër man may gis loolu di nangu di dëkk goro xalaatuma ko yow jànk wax ma leneen. en tout cas man de ngeen am imagine toi yu xale dafa doy waar yéen ñaar kese ci benn kër hmm? te xam nga goor mom des fois bu méré day yéeg ba nga xamante ni lu muy def sax du ko tay kon nak ngeen am ku leen wéttali am ku leen jappalé fi ci kër di leen conseil ci sen sey donc sant yalla la ah yow fi nga tok fi ma tok ni fi nga tok ne ma kat dañu soxla gidd suñu bi sey ya ko wax dé am ngeen ko kay ñal alhamdullilah lay wax lool gidd bu mat gidd tax ma lay wax dé waye wax la gidd bo day ñew di tas sama kër waaw ba paré lu ci gëna metti subidu da ko cey farlay xol gis nga fi mu toog nii xol man sax loolu dama kaa jëlee amatuma intimité su bi du gisatu sama sol gisatu sama sanse foowatuma kafatuma reewatuma moom daal suba ba ngoon fii ma toog lay toog uuf su bi du du ma may sax maag sama jëkkër ñu wax maag moom ñaari baat loolu est-ce que neex na te man du ma sëy benn goro bu may perturbé mais yow lan la à la fin te nag bëgg na nga xam boy affaire mu gis nga nit boy sey surtout ma jigen da ngay am sutura am bamélu bir man de musuma tok ne la li ak li lay doon suñu kër bu nekkul wol ni nga ñëw yàq sa jëkkër fekkee situation bobu non do ma sax xam limay dund parce que dama am bamélu gis nga sey da ngay am bamélu bir gis nga li de na yeen fi bu ko netalé ti kenn boo ko xaw sa sutura de. yow jank xam nga ni mos man awma ben xarit fi awma kenn ku may waxtaanal yow dong la sañ wax sama secret ak lu may metti li nak lawul Wolof ñay naan sa mat mat la borom la rek ko xam yow sax man waxuma ana sa wujubi dem dem musul bay ñooñ duñu bay woy l'essentiel daal ku fi ñew dama baye sama jamm ak sama salam kesse te na tok sax far nak ma nek ci jamm jënk jaaxal nga yow daal ne nga stress ak problème. dëggeen xulloo yow daal nee nga yow kenn mënul xool ci yow rek xam li lay metti waa kon ba tey baax na